tey nag dañu daal di gis ñaari yëf yoo xam ne di yàlla lu am importance loolu yoo xam ne dañ ko faral di ñoo koy wax forme li ñuy wax euh, forme euh, kii euh, fonction titre mooy fi filtre la ba wax ak fonction li ñuy wax mise en forme conditionnelle ñaari forme yooyu incha allah tey dañ fas yéene ànd ak yéen incha allah kon li ñu daan njëkk rek bu njëkk bi mooy li ñuy wax forme con mise en conditionnelle bi après ñu daal dogaloon ci li ñuy wax forme filtré bi formule mise en condition bi ñu ko waxee mooy que ne lan benn formule boo xamee ne daan dañ naan kat euh, misaal tey ji excellent euh, yi boo xoolee tableau bi lép ñu nuroo nga xam lépp ay ay ñuul ñuul la wala yooyu léegi nga mën nañ ko def conditionnel boo naan ko kat loo xam ne dafa am excellent defal ñu ko mel nangam lépp loo xam ne dafa am bien defal ñu xam ne couleur duñ bokk lépp loo xam ne faible la yaa xool couleur bu la neex daa koy def ñu ko wax tamit boo doon jaay wala ngay jënd xam ne ko lépp loo xam ne na supérieur na nangam def ko loo xam ne dafa toll ak nangam couleur nangam lépp loo xam ne dafa dafa dafa dafa toll nangam daf ko couleur nangam kon loolu la ñuy wax message forme conditionnel pour euh, dem rek message exemple tey jii bu ñu amee ci li ñuy wax eh, excellent bii nii bu ñu def forme boo xam ne ku xam ne excellent day ràññee ko baax baax ci fi nii dañuy sélectionné tableau bi lépp rek daal ñëw ci fii ñuy bind mise en forme conditionnel ñu daal ciy dugg bu dee boo ci duggee am na lu ñuy wax régal régal bi yëpp bu fekkee ne ay numéro la ci yi nga utiliser waaye bu fekkee ne nga texte la da nga ñëw fi ñu bind texte kii ko contient pour que ñu ko bind daal kat nga daal bind excellent mooy excellent dégg bind ko comme ni ko bindee ci kii bi dégg excellent daal di koy bind comme ni bindee ci kii yi daal di kii boo xoolee moom directement bi may commencé di bind gis na da koy indi mu daal di fii nii ñu bind remplissage bi bu la neexee nga def fii texte bi mu nekk mu gën a nekk texte boo xam ne day xaw a day xaw a zone bu neexee bii mu nekk verte boo neexee bi mu nekk boo xamee day clair boo neexee xool bu la neex bu la da nga ñëw fii ñu bind lan fii ñu bind forme format personnalisé nga daal ciy dugg daal daal dem bu dee fii nag yaa xool maam mini bi yaa xool nu la neex italique wala boog gara wala boog yaa xool bu la neex misal exemple fii après ñu daal jël nga xam ne mini bi ni lay mel bu la neexee mu nekk nii nga xam ne nii lay mel day xoogi jeng nga ñëw ci couleur fii misal tey jii nga daan ne ko na nekk couleur misal exemple mu nekk couleur vert yaa ngi dégg euh, bu ko defee euh, maanaam kii bi remplissage kii mooy li koy wër li nga xam ne moom day nekk ci côté bi moom tamit naa nekk misal exemple rek couleur bu mel nii bu defee ñaari ñaari ok ñu ok ñu génn xool ba xam nga xam ne boo xoolee externat bi ci boo xoolee moom ci boppam dafa vert externat ci boppam xaaral ma dugg af ndax externat bi dafa mel ne vert bi dafa ëpp xaaral ma dugg def beneen couleur boo xam ne xëy na maanaam dana dana xaw a tane exemple misal tey jii naataan misal couleur bu ñuul wala boog waaw ba tey baax na yaakaar naa waaw fekk dëggoon na ba mu naat daan couleur boo xam ne na mooy gën a mooy gën a fees misaal tey jii xam feeñ ne moom yaakaar naa wala zone bi na xamataan zone bi zone xëy na moom du na bu lépp bu ko defee boo xoolee da koy defal mu nekk loo xamee ne extra bi day day zone bu ko defee boo boo rek fépp foo xamee ne dafa am extra rek da koy def mu nekk mu nekk zone yaa ngi gis fépp foo ne dafa am lu ñuy wax euh, bu dul extra du ko defal dara su bi mën nañu koy mën nañoo seet daal di mat foofu mise conditionnel boobu daal ñëw daanaka kat euh, misaal tey ji euh, ñu dugg ci euh, texte bi mooy texte bi nii daan na ko rek lépp loo xam ne dafa nekk lan dafa nekk bien misaal dafa nekk bien wala boog dafa nekk très bien ndax très bien benn la fi misaal très bien dafa nekk très très bien exemple dafa nekk très bien yaa ngi gis couleur bi yaa xool couleur bu ne misaal ma ma ñëw bu la nga tànn mu nekk ci yoo xonq yi nii ci kaw bu la neexee nga ñëw personnage nga xam ne moom yaa tànn bu la ci neex misaal tey ji police bi wala boog boo dugalee lu koy wër misal tey jii man kat naa tànn fii misal exemple boo xam ne dafay rouge dina nekk bu rouge dégg nga boo defee police bi mën naa nekk normal boo defee tamit lu koy wër yaa xool comme jëmi mbind couleur mbind mi ci boobu ni mu neex nekk bu ñuul mu mu nekk bu la neex ok daal di bàyyi bu defee boo xoolee man lu ci ginnaawam boo xoolee day dafay dafay dafay xonq waaye ci kii bi dafay dafay lan dafay daal di dafay daal xonq dégg nga mbind mi daal di ñuul ni ko noonu boo neexee maam fekkee ne bien la misaal bien laa bëgg defee mise en forme conditionnelle moo ci duggee daal di ñëw fi ñuy wax euh, texte moom tamit damay ñëw ci bi daal di xaaral ma waaw bu ko defee nag jii bi ci tànn mooy lan mooy tànn très bien léegi dañ tànn bien misaal ñu bind fi bien exemple bien la ñu bind boo defee daan na ko nag euh, nañ dem daal ko personnaliser daañ ñëw tànn bu la ñu neex bu defee fii nii couleur bi nañ ko tànn couleur boo xamee ne amagu ko misaal nañ tànn euh, bleu nii bu ko defee tamit ci remplissage bi nañ tànn misaal boo xam ne xëy na dana gën a feeñ misaal ñu tànn bii wala boog bi tànn nañ ko xanaa mooy mooy xóonuloo très bien bi nañ tànn bii wala boog ñu tànn bii nga xëy na feeñagut feeñ ñaari boo xoolee lépp loo daal ok bu defee boo xoolee bépp boo xam ne très bien nga rek lépp loo xam ne maanaam euh, kii la très très bien nga maanaam ma bien la xam nga boo xoolee li tax mu indaal bien mooy que ni lan maanaam bien xam nga dafa amale ci biiram bien kon bu bu defee kon bu bu amee lii nañu mën nañoo tourné bu defee nga xamee ne boo xoolee yii jàll na kon nañ tànn yi nga xam ne mooy yii yii nii rek nga xam ne maam boo bi ci kaw nga xam ne maam dañ naan ki maam yii ñu sélectionné jël mais daan bi ci kaw ndax bi ci kaw boo xoolee am na ndax maam boo xoole très bien day day amaale bien ci biir moo tax mu mu daa koy kiiwaale bu defee nga daal koy ok yaa ngi gis defee daal tànn bi misaal bi ñu fi bien daal di bind fii bien yaa ngi gis bu bindee fi bien daal ok gis na tey boo xoolee bien bi du du jëlaat très bien ndaxte bi ngay sélectionné bëriwoo si très bien mooy très bien jëruñu ko jël ndax boo ko jëlee day lépp da koy defal ndax dafa amaal bien moo tax kon nga xoolee bu fekkee ne couleur bi kii na nee nga la ko changé waat ndax xëy na def ko beneen couleur boo xam ne xëy na moom mooy gën a mooy gën a feeñ dégg nga xaaral ma waaw bu la neexee nga def ko beneen couleur boo xam ne moom mooy gën a feeñ waaye ma def ko beneen couleur boo xam ne mooy gën a feeñ boo xam ne yaa ko tànn maa ngi tuub donc benn tere boo xam ne mooy mooy mooy feeñ par exemple fii ñu bind fii bien nga bind fii bien daal di ñëw fii misaal exemple daal tànn boo xam ne xëy na personnage lay doon nga euh, tànn fii misaal exemple daal naa tànn fii man dafa verte xanaa verte jëlaguñ ko daal di ok dégg nga boo xoolee bi minimum moom moom mooy verte léegi nag ginnaaw ginnaaw minimum lu koy wër. ñu ko tàmbali remplissage boo xam ne xëy na dana dana dana dana am jëmm wala boog dégg nga daal ok boo xoolee fii boo xoolee maanaam bain yi ñoom ñëpp ñoo bokk fenn fi ñu nekk ñoo benn couleur boo xoolee externat yi dafay dafay lépp loo xam ne fi ne dafa am externat rek day zone lépp loo xam ne da koy ruusal lépp loo dafa am li ñuy wax da koy defee mu nekk nii ku mel ne bii tamit nga fii mën lépp loo xam ne dafa nekk li ñuy wax euh, recommandé dégg nga lépp loo xam ne recommandé la exemple ci pare ñu ci ñu ngi ci teg texto yi lépp loo xam naa la ñuy wax euh, recommandé nga nga bind ko recommandé dégg nga daa ko defee benn monté benn forme woon xëy na maanaam moom moo koy wër lépp ci forme personnalité bi gaa ñu tànn bii rek wala boobu ñu tànn rouge xanaa ah, rouge ñoon ñu tànn bi nga xam ne dafa xaw ok yaa ngi bàyyi bu defee boo xoolee moom lépp loo xam ne dafa dafa dafa fii nga nañ fii lépp loo dafa nekk li wax accepté accepté ak moom boobu toujours rek boo commencé bind rek da lay indi li nga li ngay wax nga ko saisonné bu ne fii parce que format personnage bi su ñu beneen bi donc nekk misaal tey jii naa nekk bii ok bu fekkee da nga bëgg a changé moom mbind mi nag moom mooy pour couleur mbind mi ma nga ñëw fii ah da xool yaa bu la neex dégg nga daa koy tànn mais daal di nga accepté nga daal ok boo xoolee nga xoolee ok nga ok fii nga accepté yi boo xoolee yëpp ñoo bokk couleur wala ko tamit dañuy nekk ci même kii bi ñu xam ne dañ koy nekk bu ñu ba tamit nga daal waat ne ko faible faible tamit moom na nekk boo xamee ne xëy na euh, kii lay nekk euh, moom nañ ko changé moom tamit def ko xëy na beneen couleur nañ bind faible faible dégg nga nañ bind faible faible nañ ko bàyyi noonu dugg foofa nga gis kon gis na fi mu toll nii yi nekk fii yëpp benn bokkute sa morom ko doon at yi fi mu toll nii yëpp ñu bi daana ko nag ñëw ci ko nag lépp loo xamee ne dafa supérieur ñaata ah, xam moom moom da lay indil benn tableau boo xam ne da ci bind dara yaakaar na yaakaar na ko soxla boo neexee nga kon boo neexee ba waaye léegi ma daan ko lépp loo xam ne da ëpp na 35 wala ëpp na ëpp na ah, ko mën naa ne boo xoolee yëpp day daal di xonq yaa ngi gis ah, da koy commencé def ko def ko ëpp na 35 36 na ëpp na ko 40 ni ko ne fii tam bi ñuy daan ko tamit na nekk loo xamee ne lépp boo xamee ne xëy na misaal tey jii euh, maanaam inférieur na bi lépp boo xamee ne inf dafa inférieur 39 ah wala dafa dafa inférieur bare tamit dafa inférieur 39 nañ bay 39 dafa inférieur 39 def ko mise en forme na ko changé daal ñu ñëw si misaal personnalisé yaa xool fekk personnel neexee daal beneen misaal tey jii ñëw ci remplissage bi misaal ma ne ko nekk forme bi ok ñu bàyyi xool ba xam nax nuy mel gis nga boo xoolee lépp loo xam dafa inférieur 39 boo xoolee 33 moo gën a tuut 39 36 moo gën a tuut 39 30 moo gën a tuut 39 27 ni nga noonu boo xoolee 54 yi moo moo moo supérieur du ko indi ndaxte maanaam mise en forme conditionnelle ko tegal moo tax ba lépp loo dafa inférieur kii rek noonu la nga kii ñu ko dem fii ne fii tamit mën naa ñëw fii saa su ne fii daanaka xam ne xëy na dafa lan dafa mën nañu am li

52 da koy jël dégg ndax 52 mi ngi ci diggante 34 ak mi ngi ci diggante 32 ak 64 boo xoolee tamit 48 mi ngi ci diggante bi boo xoolee euh, ay ay ay ay ay ci ndax 68 diggante li nga ko waxoon mooy que 64 nga yemoon kon bu fekkoon sant bëgg wala nangam waaye dama dama ne ko diggante 64 ak 30 32 ak 64 bu ko defee moo tax moom loolu loolu jël wala tamit nga ñëw fii ko lépp loo xam ne xëy na dafa dafa dafa la ñuy égal nga xam dafa égal misaal lépp loo xam ne dafa égal 68 misaal exemple lépp loo xam ne égal 68 defal ma ko boo xam ne day day ràññeeku dégg nga boo neex nga ñëw tànn fii ñaar yi rek lay marqué ndax ñaar yi ñoo ñoo toll ñoo toll 68 bu defee yi des yëpp du du leen jël ndaxte ñoom mëtuñ 68 bu defee boo neexee nga nga nga ne ko supprimer inférieur dafa nekk boo xamee ne dégg taxes yi ma nekk noonu bu fee bu fekkee ne nag maanaam euh, kii bi valeur bi dafa dafa double ba tey valeur bu double man nga mën nga ko def dégg nga xam ne moom moom moog bii daanaka duñ taxaw a sore rek bépp valeur boo xam xëy na dafa xaw a double nga ñëw fii dégg nga man ko xëy na bépp valeur boo xam xëy na dafa xaw a dafa double dégg nga ak ba li li li ma mën a ab ñu ngi ci ñëw léegi euh, léegi ñu ñu àndee tuuti ci digg xëy na bu bi ñoo ci double bi. rëdduwuñ boo xoolee boo xam ne xëy na maanaam dafay dafay ëpp benn bi lu ëpp ñaar nga xam ne moom maam du da koy dugul lu xaw ëpp boo xoolee quatre-vingt-dix ay quatre-vingt-seize ay quatre-vingt-quatre ay quatre-vingt-seize ay quatre-vingt-dix yi nga xam ne boo xoolee ñoom daanaka dañ ci dañ ciy ñëw ñëwaat ndax boo xoolee quatre-vingt-dix ñëw na fii ñëwaat fii quatre-vingt-dix yaa ngi gis quatre-vingt-seize moom boo xoolee moom maam moom da cay wét moom da cay wét boo xoolee euh, quatre-vingt-quatre quatre-vingt-quatre yaa ngi gis maanaam maam yi yi yi yi bépp boo xam ne da ci rek ndax boo xoolee maam noonu la ko indee maanaam yi nga xam ne dugalut da koy da koy bàyyi noonu kon loolu mooy mi li ñu xam forme misaal forme conditionnelle tey ji exemple jii misaal tey jii ñu ngi ci la la dix tey jii boo bëggee xam date tey bi misaal tey jii euh, boo ma ñëwee misaal misaal exemple daan ne misaal ma bind ko fii sax misaal daal bind la dix dégg nga daal bind la dix douzième mois euh, deux mille dix e, exemple rek boo neexee am feneen boo ko indee waaye lii exemple la ñu waxee fii euh, boo xoolee misaal tey jii ma daal di trier fii na am mbir am yeneen date dégg boo xoolee c'est la même chose que benn la indiwaat dégg le 12 12e mois 2018 le 12 nga xam ne moom day tëb daal day tëb bi nga ñëw fii le 10 12e mois 2019 nga xam ne da day tëb par année comme ni ñu ko waxee ni ñu dañu naan trier ci 1 2 3 moo ñuy indil fi ne boo boo tëbee da day indi misaal tey jii tey jii moo bindee fii 2 bind fii euh, daa leen sélectionné bu mu trier day moom day tëb day boo xoolee gis na daan 2 4 6 8 ndax da nga tëb moo tax moo tax fi ne fii tamit day tëb kon bu ma bëggee lan mu taf solo nga xam ne dañ naan le 10 12 mois 2018 après le 11 12 mois naan lan damay taxaw ci kër gi damay taxaw ci kër gi fii ma def égal yaa ngi gis ne bii nii de plus plus maanaam plus lan euh, plus plus 1 nga xam ne maanaam mooy que ni plus benn benn benn jour bu defee mën a la xaama yokk fi tuuti am am na njumte nañ def fii ma def égal daan ne eh, bii ñu nekk nii waaye boo xoolee bee dafa baaxut ndax li tax baaxut mooy que ni dafa am li ñuy wax benn benn lu mel bind ma la duus man dama bind rek eh, la kii bind moo tax daan daan ko baax ma fi da nga naan égal ne bii de bii plus waaye mooy mooy zaid plus 1 nga moom mooy mooy tey mooy suba la onzième mois bi bu fekkee boo taxawee fii misaal tey xam nga xam danaa ma le le dix le onze le douze nga xam ne fi ne mi ngi ko doog indi nga xam ne moom toujours bu fekkee da bind bi daal doog a trier waaye bu fekkee benn bi wala benn tëb ko boo koy indee moom da koy tëb ko sans dépasser noonu nga ko rek fii tamit mën na cee def mise en forme conditionnelle misaal def fii xanaa ma selosona mbir mi ngir mu gën a rëy ba bañ forme condition fii même fii boo ñëwee li ñuy wax un date misaal mooy loo xam ne démb la woon dégg nga boo xoolee date démb nekku ci léegi nañu xoolee ko datu maanaam aujourd'hui boo xoolee aujourd'hui gis nga da koy da koy da koy def nga ne ko nag après ñaare après demain mooy mooy suba gis nga mooy mu daal koy dafa benn ko nag fii ak ñaata fii ak euh, fii ak ñaata fii euh, exemple feek euh, maanaam euh, feek ñaata da dans les sept jours dégg mooy que ni dans les sept mooy que ni sept yu mujj yi nga xam ne passé na ma nga xam ne ci dix la lay jëm bu amoon fii neuf jëm da ko ciy boole nga am fi li wax la semaine semaine dernière boo xoolee amu fi boo xoolee tey ñu si ci tey semaine dernière amut loo xam ne démb la nga ñëw ci li ñuy wax sept semaines sept semaines moom boo xoolee lépp maam seen bii ñëw nga xam ne le dix bala 15 daanaka boo xool moo demaat ba ba incha allah dimanche bii di ñëwaat xam ne tey boo ñëwee fii daanaka sa la mois dernier boo xoolee mois dernier amul fi ndax boo xoolee amut amut loo ñu wax euh, ñu ngi ci ñu loo xam ne ci sa mois boo xoolee moom lépp la indi ndax boo xoolee lépp mi ngi ci mois bii nii fii ni nga ne nga ne ko lan la mois prochain boo xam mois prochain amu ci fee tey boo amoon boo xam ne misaal tey jii ma bind fii misaal ma ok fii tuuti daal bind misaal tey jii misaal euh, le premier euh, premier mois deux mille dix neuf danañ ci àgg jàmm fii nii maanaam bu ma sectionné fii xëy na maanaam ci normal war ma mën indil boo xam ne maam day nekk semaine prochaine mooy mois prochain boobu nga ñëw fii dañuy wax date valeur ñu ngi daan nga ne kat yàlla fan laa nii sax dégg nga ñëw ci mise en forme ko kii bi xam nga date misaal dégg man leen mois la la la la mois prochain boo xoolee location centre maanaam le doon xool loo xam ne ji nga am ay employé naan kan mooy ki nga xam ne maanaam liggéey soo na dat sangam boo sélectionné rek daan na mois prochain ñi liggéey suñ ñëpp la ko indil ñi xam liggéey suñ ñëpp du du leen du leen kii kon ba tey mise en forme conditionnelle fii mën na ci am ay yeneen misaal tey jii nii misaal bu ma sélectionné misaal tey jii moyenne yi de mën na koo def mu nekk ay moyenne yoo xam ne xëy na ñu naan la plus plus élevé maanaam moyenne moyenne plus élevé maanaam boo xoolee moyenne yi yi ëpp maanaam moom dañu naan moyenne plus plus dix dix premiers élèves yi mu sélectionné boo xoolee di commencé kii bi ci mooy Serigne Dame Ndiaye ba ci Serigne Abdou euh, Babacar Xamar Abdou Samad Lo ñëpp da leen sélectionné mooy mooy ñooñu ñoo première boo neexee ne ko sélectionné ma neuf kese boo neexee nga ne ko ko sélectionné ma deux yi nga da ngay wàcc boo neexee nga bind boo neexee nga yëg bu dee moom loo soxla na rek ñoom lool lool indi boo nee da ngaa ne ko indi ma ñaata indi ma mooy maanaam dix maanaam dix bi mooy fekk na valeur mooy ay moyenne dégg nga ñu nga xam ne mooy bii mooy lan nga ne ko valeur supérieure la moyenne valeur supérieure à mooy valeur yi nga xam ne dañoo supérieure à la moyenne dégg moo nekk nii mooy yëpp dañoo supérieure à la moyenne dégg nga ñëw ci fii tamit yaa xool daal sans maanaam yow yow loo bëgg rek dégg fii ay valeur moyenne moyenne dégg dégg valeur inférieure à la moyenne boo xoolee ñett ñi ñoo indi mooy que ne ñi mooy ñi ñooy ñaax na dañoo inférieur a la moyenne bi mooy moyenne yi ëpp dégg bu la tamit mën ngaa ñëw foofu mooy ci misaal forme conditionnelle bi xëy na change yi mooy ay xeet nga xam ne boo xoolee tableau yi da koy dafa ay couleur misaal tey jii da lay wan na la kat ci kaw misaal tey jii kii ci kaw nii moo ëppale kii topp ci kii nii moom dafa fees kii topp ci tuuti kii ñëw kii ñëw nga xam ne boo xoolee lu mu gën a wàcce rek yëf yi da gën a dafa gën a dafa gën a wàññeeku boo xoolee six bii ni boo xoolee sept bi li mu ko ëppalee sept bi kii li mu ko ëppalee kii li mu ko ëppalee nga xam ne toujours rek maam ku ku gën a kawee ba ba ki gën a suufe day day feeñ ci maam pourcentage bi nga xam ne noonu lañu ëppalantee boo xoolee bii tamit noonu la boo xoolee bii noonu la nga ñëw ci bii couleur yi boo xoolee bii noonu la yii toujours yi gën a tuuti la da kii nga ñëw ci jeu bi boo xoolee bii nii nga ne flèche yi day defal ne mooy maanaam boo xoolee ñu njëkk ñi

mooy war ne kon ñoom seen moyen dafa tuuti boo nee mu nekk ay baar nga xam ne xeetu baar da nga am moyen bu baax sa baar day fees képp koo xam ne ba kii bu réseau xam ne dafa kii dafa dafa doole loolu boo nee mu nekk ay drapeau nga xam drapeau yi nga xam ne ne day def ay ay la bëgg ay flèche ba ne fii mu nekk ay comme ay yi nga ne lu gën a fees rek wane na yow sa sa na baax ci tamit sa carré carré bi lu gën a gën a ñuul mu wan ne yow da nga gën a moyen bu baax dégg nga ñëw ci fii sa kii say kër kër lu lu gën a fees mu wan ne yow a nga am ay moyen bu baax kon daal yéen yàlla dañ koy utiliser lu bari ba la ñuy moo xam ne wax dëgg am solo lool lool lool lool nga xam ne daanaka nañ ko utiliser lu bari bari booy jaay ba xam maanaam ñi ëppale ma defal leen ay ñangam ay kii ça dépend ci xëy na ni ko sentir rek kon daal loolu mooy fan mise en forme conditionnelle kon yaakaar naa liñ ci liñ nekkoon lépp leeral nañ ko ci fii xanaa kon bardana meeg lépp waaw la yaakaar naa lépp leer na xanaa léegi ko defee kon beneen bi ñu jëlaat mooy li ñu wax li ñu wax li ñu wax lan xam nga dina mise en forme conditionnelle xëy na mën naa ma soxlaat kii bi xëy na bu baax léegi beneen bi itam mooy li ñuy wax li ñuy wax trier mooy li ñuy wax forme filtré filtré laa bëgg wax forme filtré man tamit wax dëgg yàlla mbir mu ama am am solo la moom tamit euh, filtré moom mooy que ni tey jii maa ngi am li ñuy wax fii Baye Sall Waalo am fi Cheikhouna Bousso Abdou Samad Lo seen tur ñoo nekk nii sëriñ Fall Khadi sëriñ Mbaye Ndiaye sëriñ Bachir Bara sëriñ Jiil Abdoul Khadim sëriñ Fall Guy Mbind sëriñ Fall Abdou Khari sëriñ Babacar Xuma sëriñ Dame Ndiaye sëriñ Cheikhouna Cheikhouna Mbacke Bédoo sëriñ Mourtala Lo sëriñ Fallu Dramé Baye sëriñ Mbacke Tawfeex sëriñ Fall Bousso Hassan sëriñ Modou Mbaye yëpp ay tur la yoo xam ne maa ko maa ko rek ngir joxe exemple Baye Modou Sàmm ñu ñu xam la Soxna ak euh, soxna mam mam jaara cheikh na xam nga yàggal te tur pour tur gën a feeñ soxna mam jaara cheikh na tur gudd moom bu defee nga ci soxna Astu Mbàkke sëriñ Abdul Xaadir Jóob kon ñi ñooy kii bu defee ñii li mooy turi lii mooy quartier mooy fi ñu dëkk ci Touba misaal tey jii kii muy tubaa Touba Guédé kii Touba Touba Sora kii Touba Ndam kii Touba Sora kii Touba maam Garba kii dégg nga xam ne ay tur la Touba kii kii Touba Touba Darou Khoudoss kii Touba Guy Mbind Touba Guy Mbind Touba Ndaam Touba Darou Khoudoss Touba Touba Touba Sud dégg nga Soro laa bëgg na wax xëy na def Touba Soro dégg nga wala waaw naa def Touba Soro rek de Touba Soro dégg nga mi dëkk Mbacke Mbacke xam nga bokk si Touba kii Touba Ndaam Touba Guédé Mbacke Touba Garba Touba Touba Garba moom tamit dégg Touba Soro la bokk fii moom it Touba Soro dégg nga Touba kii Touba Guy Bind kii Touba Ndaam Mbàkke kii waaye lii mooy seen profession mooy li ñu li ñu def maanaam maanaam lu ñu nekk fi mu toll nii kii ab étudiant la étudiant la dégg nga boo xoolee kii ab étudiant la kii maanaam day def ab professeur la professeur coranique mooy day jàngal alxuraan kii étudiant la kii informaticien la kii commerçant la kii informaticien kii informaticien kii président du mouvement kii professeur coranique euh, kii étudiant la kii informaticien commerçant dégg président du mouvement ma poétique mooy la kii poétique kii poétique dégg professeur coranique dégg commerçant président du mouvement informaticien kii boo defee loolu mooy seen kii bu defee nag maanaam seen i cas maanaam seen i xaalaat daal nuñ mel kii dafa marié kii marié na kii célibataire la ki sabreer ki sabreer ki sabreer ki maree ki maree nga xam ne mooy mooy ba jeex dee fii mooy seen âge kii mi nga am 22 ans kii 22 ans kii 21 ans kii 30 ans kii 28 ans kii 22 ans 21 ans 28 ans ans ba jeex lii mooy ay prime na dafa amoon ay prime yu jox kii ñu jox ko 100000 kii 100000 kii 200000 kii 150000 kii 45000 euh, wax 40000 bu ko defee nag comme tey ni nga ko defee ma ni nga ni nga gisee numéro yi am espace suñ ko defee mooy que la misaal tey jii boo amoon filmé na ma bindi fii cent mille cent mille exemple rek dégg bindi fii cent cinquante mille dégg nga ma tax si ko wàcc fii ngir mu xëy na dégg nga ma rek ngir mu xëy amaat yeneen kii boo cent cent mille cent cinquante mille deux cent mille cent xam ne boo xoolee cent mille cent cinquante mille cinquante mille la ko ëppale moo deux cent mille deux cent mille lay ëppale nga xam ne tey jii toujours rek kenn ku ne la nga ëppale boo trier boo boo bësee ñaar la nga la mu ëppale boo xoolee boo bëggee nag mu def espace nga xam ne nga xam ne boo xoolee espace pour mu gën a neex a liir mooy taxaw ci ku njëkk nii rek dem forme fañ daan dem rek miin nañ ko bu dañoo gis ne dañ naan coché bu fekkee ne ginnaaw virgule lañ bëgg waaye bu fekkee dañoo bëgg mu nekk loo xam ne maanaam gin maanaam day am espace nga xam ne ay espace lay nekk dañuy dañuy wàññi ba mu nekk zéro bu fekkee ñaari ñaari entrée yaa ngi gis dégg nga day wàññi ba mu nekk zéro ñaari entrée xaaral ma bësal ko euh, fa ma la silin dégg nga waaw nga daal coché nga coché daal di ko daal entrée bu fekkee maa lay mu defal espace bëgg ñëpp am ko nga daal def mbale gi rek ma rappelé la sa forme moom yomb na liggéey yu bëree bëri su fekkee ne boo xoolee da def da def espace nga xam ne cent mille yi lépp loo xam ne dafa am ëpp hectare fi ne boo xoolee fi ne bi lii bu doon un million la bu doon un million tamit da def espace lu yëf yu bëri bëri cent da def espace bu doon nga yokkaat cent cinquante milliards yàlla yàlla may <laughs> wàllu ko ëpp lépp ñu liggéey yàlla di liggéey Sëñ Tuubaa dégg nga jaam liggéey Sëñ Tuubaa bu defee nag cent cinquante mille moo xool bi mooy mooy suivre kii bi mooy mille bi ma millions bi ma milliards cent cinquante milliards boo xool mu gën a kii loo gën a yokk rek day def espace kon loolu noonu ngir mu gën a neex euh, kon ginnaaw bu loolu jeexee li ñuy def mooy lan mooy li ñuy wax filtré filtré dafa am ñaari façon filtré dafa am lu ñuy wax filtré avancé ak lu ñuy wax filtré maanaam simple nii exemple xaaral ma ma ñu ñëw dañu ñëw fi ñu wax donné donné xaaral ma ma ma supprimer filtre bi fi nekk xëy dégg nga defee boo ñëwee ne boo xoolee boo seetloo ci kaw kër yi nii fii nii amul benn fenêtre bu fi nekk yaa ngi seet yaa ngi seetlu amul benn fenêtre bu fi nekk bu defee nag moo defee doon rek moo bësee filtre rek day defal yëpp ay ay flèche yaa ngi gis defal kii flèche kii flèche kii flèche flèche flèche ba mu jeex bu ko defee tey jii nii lii ban njëriñ laam am njëriñ mooy que tey jii damaa soxla woon xam ñu dëkk Touba Guédé kese kese kese laa soxlaa xam waaye ku dul ñoom soxla mu nekk ci table bi ba bëgg xam ñoom ñan la li may def mooy lan damay taxaw ci tableau bi fii nii yaa ngi gis fii ñu bind ci fres bi ba bës mu sélectionné ñëpp maa dindi daana ko mën kaa ñi ma soxla mooy ñan mooy ñu dëkk Touba Guédé xam nga ñoom laa soxla moo xool ñu fi Touba Guédé nekk an Touba Guédé Touba Guédé Touba Guédé Touba Garba Touba Touba Guimine Touba ñoo nekk nii maa di bës maa di ok boo xoolee ñett nit kese ñu dëkk Touba Guédé mooy Baye Sall Waalo ak Serigne Fall Dramé a Serigne Fall Bouta Hassan yaa ngi gis bu fekkee bu ma mooy filtre bi moo la booy filtre xëy na li gën mooy dangaa dem ci fooy woo xam ne xëy na misaal tey ji ma na ma dama koy soxlawaat dama koy jël ak ko coupé ci benn fooy boo xam nekk bu defee di filtré foofa daan ne ko tey jii kat soxla mooy ñaan mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk quartier ban dindi ko mooy ñu dëkk lan Touba Sora kese laa soxla ak ñu dëkk Touba Ndam exemple ñoom ñoom ñoom la soxla boo ko ñoom rek la indil yaa ngi gis yaa ngi Touba Sora Touba Touba Ndam kii Touba Sora kii Touba Ndam kii Touba Sora ku boo defee si fii nii a la koy dindiwaate fii maa nag kat wax dëgg yàlla ñi ma soxla mooy ñan mooy ñi nga xam ne xëy na ñu dëkk Touba Guy Mbind ak Touba Garba dégg nga ak Touba Daaru Xuddus ñu ak ñu dëkk Mbàkke ñi ñi rek laa soxla dégg ñu dëkk Touba Sam dégg nga daal ok boo xoolee ñoom rek lay indil boo xoolee table bi day gën a wàcc te day gën a wàññeeku boo xoolee Touba Garba Touba Daaru Xuddus doo gis ku dul ñoom ba tey maalumaat yi fi yi ñoom rek ñoo ci nekk xam nga très bi dara wan na la fi mu am na am na am na loo lu dañ loo xam ne wax dëgg kii nga ko yaa ko def ba defee nii yëpp daal di ñëwaat ñu kon nag fii professionnel yi boo ñëwee fii nga daan ne kat ñi nekk étudiant kese laa soxla étudiant yi la indi fi nekk étudiant mooy Sëñ Dame ak euh, Sëriñ Mbaye Ndiaye ak Baye Salwaal boo xoolee boo defaatee discipliné indil nga ñëw daan ne ko xëy na kay ne tey ay commerçant lañ wala boog ay commerçant lañ ñoom laa soxla du bës

nga dañu way di bind way ñii laa soxla bay sëñ Mbàkke taw feex la suñ a bari bari boo ñëwee si li ñuy wax président du mouvement nga nga dama soxla naa sa information man tey jii moo ñoo nekk nii Cheikh Abou Solo suñ Fabul Abdou Khari sëñ Fall Dramé dégg nga soxna Asdiarama nga kii ñaar kii célibataire la kii mari marié la kii ça veut dire kii mi ngi am 22 ans kii lépp da lay indil seen seen information yi nga xamee ne bu defee la supprimer bu defee ma dañaat yaa ngi gis nga ñëw fii daan ne ko tey jii kat eh, ñi ma soxla ma ñan misal tey jii ci ci ci kii bi mooy que ne mooy ñi nga xam ne alxuraan kese lañu jàngale may ma kii coranique yi ne la Abdou Samad loola sëriñ Babacar Xumba ak eh, kii mooy nekk ci maam Sëriñ maam 4 mooy ci kii bi kii nekk ci lan bu 11 bi kii nekk ci 19 bi nga indil kii maam directement pour mu pour mu leer ci ci yow indil maalumaat yi nga xam ne mooy information yi nga xam ne maanaam moom la jagoo bu defee am na tamit benn bu ñuy wax maanaam euh, mooy bu nekk foofu maanaam tey jii misaal tey jii buñ ñëwee ci li ñuy wax maanaam maam kii fekkoon dafa am ay couleur nga xam tey jii dama dama ko ay couleur maam maam da koy tëree par couleur dégg am na tamit li ñuy wax tëree fii nii mooy képp ko xam xëy na maanaam tey jii misaal tey jii misaal tey ba ma ñëwee fii ci 22 ans yi ma ñëwee fii képp koo xam ne ma ñëwee ci filtre numérique ma ne képp koo xam ne dangaa nekk égal égal à ñaata égal égal à 22 ans yaa ngi gis na benn 22 ans isin ba xam parce boo xoolee ñu am 22 ans kese la indi indil képp koo xam ne ans du la yaa gis maanaam ma yaakaar naa maanaam liggéey la bu am solo te gaaw bu ñëwee fii fii tëral numéro yi mooy que ne képp koo xamee ne eh, dégg nga am différent dégg nga différent boo xoolee dal naa bind euh, vingt vint ans dégg nga eh, ok boo xoolee. ñu am diggante maanaam ci yi nga xam ne maanaam ñu xam ne amoo ci diggante vingt deux ans yi ba ci trente ne amoo différence rek génn nga xam ne ku am lu lu ñooñ xëy na ay dix huit ans yooyu waxoo doo leen fi gis ndaxte xëy na ñoom dañoo différent ak ak ak ñeneen dégg nga ñëw tamit ne ko ne ko xëy na numérique numérique ñoo ci supérieur mooy que ni képp koo xam li nga am ëpp na vingt maanaam vingt deux ans wala boog ëpp na vingt deux ans dafa ma ko mu nekk lan mu feeñ boo xoolee ñi am 30 ans la lay indil ak ñi am 28 ans ak ñi nga xamee ne maam seen âge na foofu tool bu defee maanaam boo supprimé fii mu dañaat dégg nga boo ñëwee fii tamit nga ne ko xëy na maanaam ñi nga xamee ñu ngi ci supprimer boo xoolee fii nii maam liggéey bi muy def bu ñu tuuti xaw naa nuróog lool ak liggéey bi ñu doon def ci li ñu def mise en forme conditionnelle li leen wut rek mooy mise en forme conditionnelle da ko defar ay couleur bu fekkee fii nag da koy dindi ci maam ci tabla bi nga xam ne doo doo gisati loolu rek wute waaye ñoo bokk lépp ñu daal fii ñu euh, na ko dix maanaam dix premières yi nga xam ne ñoo mujj te Abdou Khadre mujj si ma ñëw fii ne ko mooy dix dix maanaam ñi nga na xëy na ñoo andi première yi boo xam bi mooy ñu ñu ne ko o mooy ñu nekk ci suuf mooy ba daal ok boo xoolee li nekk ci suuf lay indi dégg nga xam ne du toujours dix yu mujj rek ñoom la indi waaye du indi ko du ñoom bu dee kon loolu mooy li nga xamee ne maanaam wax dëgg yàlla moo ajoon ci li ñuy wax kii personnalité bi kon wax dëgg yàlla maanaam am na solo loolu yaakaar naa wax dëgg yàlla naa dañ koy soxla lu bare bare bare bare ci dindi ak yoo xamee ne bu fekkee ne fii célibataire woo neex ma dindi donc indi ma marié yi kese ñi nga xam ma dindi leen mais boo xoolee marié kese lay indi ku dul marié dul indi kii bi léegi dafa am beneen boo xamee dañ euh, filtre avancé moo tax loolu yàlla dafay mbir mu ko def dafa am ay ay sart yoo xam ne da ci daje sart yu bi naa ko soxla balaa ko copier maam ndax ndaxte doo ko copier ndax boo ko bindee mën naa am ñu da ngay copier rek misaal tey jii te ko fii naa kopee fii misaal naa copier fii xaar ma gën a wàññi kii bi ngir xëy na lépp di feeñ dégg dégg moo nekk noonu bu defee léegi lii moom wër na naa ko soxla ndaxte lii ni moom tur yi nooy ak yii nii c'est la même chose yi nekk fii nii c'est la yi nekk fii yëpp dama ko indi fii léegi leen la ci def mooy lan mooy que ni euh, li ma soxla mooy lan mooy soxla naa képp koo xam ne marié nga ah, mu indi ma la fii mooy mooy képp koo xam ne maam kaa bi mooy marié nga ma ma ma ma ma kii bi ni fi misaal daal di bi copier marié copier marié kaa daal ñëw fii daa ko daa ko fi daa ko fi collé exemple rek exemple marié dégg ndax loolu rek laa soxla mën na ko déet képp koo xam da ngaa marié ba pare boole koog dégg képp koo xam da ngaa nekk marié ba pare boole koog lan boole koog nga am neexal boo xamee ne xëy na misaal tey jii ëpp na maanaam misaal tey jii kii ma xool kii marié na marié la benn bala ko tamit li kii bi ëpp ëpp na ëpp na ñaar ëpp na cent mille léegi ma ne képp koo xam am lu loo na ma indil dégg nga misaal képp xam ne ma dee pare am lu ëpp na quatre-vingt-dix mille wala boog waaw ëpp ëpp na quatre-vingt-dix mille ma def quatre-vingt-dix exemple exemple rek quatre-vingt-dix mille yaa gis dégg nga quatre vingt ah defee yaakaar na quatre-vingt-dix mille pour nga xamante ma def fii rek pour mu gën a gaaw koy sëñ Ruqayya Lamin Jaafar moom dafay moom li mu def xam nga kii ko benn yoon rek bu ko 90 mille misaal tey ji forme pour pour mu am boo xam ne xëy na dañ dañu gën a xam kii bi coché wàññi ko ba mu nekk zéro dafay dafay 90 mille ne da nga nekk mere nekk 90 mille nañu indil fi dégg nga loolu mooy cas bu njëkk bi misaal tey ji dama ñëw li ñu boo ñëwee doone nga ñëw ci fii ci filtre avancé bii ñaari façon benn mu nekk loo filtre la liste nga xam ne liste bi maam ci liste bi kese la la kii nga ne kon boobaa lii du ma ko soxla lii ne nga xam ne boobaa moom maam kër yi danaan fan maam zone de critères yi maam loo soxla bu defee maa di bés ci kii bii nii daal di lii ñaam zone de critère nga xam ne moo la soxla ne képp koo xamee ne da ngaa nekk marié bara bokk ci bi nga jot ëpp quatre-vingt-dix génneel ma ko daa de fii bu fekkee dafa dafa nga def fekkee ne soxla double bi nga bàyyi bu defee daal daat bàyyi mais boo xoolee amul maanaam maanaam boo xoolee marié ñoo nekk nii bépp marié boo xamee ne da nga am lépp 100000 gis nga da lay da lépp 90000 boo xoolee kii 100000 la am kii 300000 kii 250000 boo xoolee sa boo xoolee nag tableau ba day dem ndaxte da yow bi njëkk bi moom tableau bi si tableau ba moom lay joué yëf yi yaa ngi bu defee nag boo añee daal ma dem léegi fii nag boo nekkoon nag képp koo xamee ne da ngaa da ngaa nekk marié yaa ngi gis waaye daal ñëw forme daal fii nii daal ñëw daal bés bi fii ñëw copier vers autour daal di copier ma ñëw ci zone de critère bi daal section zone zone de critère moom mooy maalumaat yi nga ne moom moo jogoo li nga bëgg a def li nga bëgg a def euh, kii bi filtre avancé bi fii nii mënaan na ko fan nga ko bëgg a teg mënaan na ko man tegal ma ko fii misaal tey ji exemple man kon ko naa naa ko ci ne bu fekkee ne day day day double wala bu ñàkk double sans répartir noo ko bëggee nga ok boo xoolee gis nga fii loolu ko indi table moo nekk nii mu ne boo xoolee ñii ñëpp ñu dañoo marié bala ko am 22 ans bala la kon boo tamit mooy mooy benn dafee boo boo ñëwaat ci kii yam dégg nga bu neex ma daa ko supprimer waat misaal tey jii ma ko exemple ma ko daa da xoolaat beneen beneen beneen kii boo xam ne xëy na yaakaar naa dinaa ko soxla misaal tey jii ban laa soxla ma laa ne ko léegi tey jii képp koo xamee danga nekk marié wala képp koo xam ne maanaam da nga nekk célibataire exemple da nga nekk lan célibataire lay lay lay copier damay copier célibataire ñu daanaka képp koo xam nekk célibataire dégg muy benn képp koo xam ne nga boole kooku xëy na maanaam tur yi moom xam nga tur yi daanaka duñ ko bokk moo tax xëy na Pensa du jar Pensa Pensa quartier boole kooku dëkk Touba Guélé yaa ngi misaal maa jël Touba toujours da nga jël bii da nga ndax bu fekkee da ngaa jum si mini mi du la indi li nga bëgg misaal daal bind Touba Guédé dégg nga bu copier moom boo neexee nga yaa xool rek dégg nga Touba lañ dëkk dégg nga dëkk léegi ma xool man kii Touba Guédé dëkk mi nga am 22 ans dégg nga bala Asam misaal Asam naa def ne xaar ma yokk fi beneen aas misal tey jii xaar ma supprimer 90 mi bu defee daal di daal di daal di daal yokk fii ma dépasse bii rek dégg daal di daal di kii misal tey jii xaar ma déplace bi bi ñu fii ah beneen binaa fi beneen aas misal tey jii naa fi beneen aas rek pour mu gën a gaaw nga am binaa fi beneen aas mu ne képp koo xam ne da nga recruté da nga da nga recruté da nga recruté ko am lu ëpp am diggante lan am diggante vingt ans dégg am entre diggante yow léegi am ci ayaat ëpp na vingt ans ëpp na ëpp na vingt ans exemple rek na bi ne vingt ans am li nga ëpp na vingt ans dégg waaye nag agut agut vingt deux ans a agut vingt deux ans vingt ans nga am diggante vingt ans jàpp jàpp ñaata jàpp jàpp jàpp vingt ci diggante fa vingt vingt ans ba vingt vingt et un ans maam xam ne boo xoolee àggul vingt deux ans dégg àggul vingt deux ans daal di léegi bu boo xoolee ñu dëkk Touba Guédé xam indi fii ñu dëkk Touba Guédé nga xool boo xoolee ñu dëkk Touba Guédé mooy kii kii moom mi nga am vingt deux ans kon boo xoolee kon maanaam ci yoon ci yoon kii bu ñëwee sart bu ñëwee wurutee bokk moo xool keneen ko xam dëkk na Touba Guédé moo xool ba xam ndax euh, euh, kii moo dëkk Touba Guédé kii mi nga am moom maanaam mi mi nga am vingt huit ans yaa ngi gis kii moom vingt vingt vingt vingt vingt la kon xam def na ko ne ko képp koo xam ne nga am vingt deux ans waaye aggoo ci aggoo ci vingt huit ans misaal exemple képp koo xam kii bi te aggoo aggoo xam ne am nga vingt ans waaye aggoo ci huit ans nga xam ne diggante vingt vingt ans huit ans ci nga nekk dégg

yaa ngi gis bu fekkee daa daa di sélectionné gis nga daa di sélectionné sélectionné kii bi sélectionné mooy kii bi lépp yaa ngi gis daa koy sélectionné daa ne nag fan mën ma fan nga ko bëgg a def mën ko tegal ma ko fi misaal ma ma tegal ma ko fii daa ok bu defee nag daa def entrée yaa gis kenn kese moom mooy ki nga xamee ne maanaam célibataire la yaa ngi gis maanaam boo xoolee suñu sol bu sax kese mooy mooy ki nga xamee ne ab célibataire la dégg par wala ah, ko di am diggante vingt et un ans vingt et un la am li mu am vingt et un vingt la waaye tamit aggul ci vingt huit ans yaa ngi boo xoolee prime yooyu def ma kon moo tax moom moom kese lay indi ni ko noonu tamit xaaral ma dindi ko moom tamit defaa beneen format conditionnel dégg nga nga xam ne dafa beneen beneen beneen kii bi mooy xëy na képp koo xam ne am nga am nga am nga am nga maam vingt ans dégg fekkoon am nga vingt ans bala ko maanaam amul sax mooy sabataire na nekk ana am vingt rek loolu rek mooy sart na nekk lan xam boo xoolee bàyyi sal loolu rek laa soxla ñoo si mu section table bi mu ne ko dama ko def feneen léegi bu defee daal dugg ci daal di fekk na gis naa man seetlu na moom ko seetlu ne bu defee yaa xool fekkee ne am lu ñumte mën na ko man ma ko fan tegal ma ko fii na exemple xool boo xool gis nga boo xool bàyyi taal waale Touba Gueye dëkk nekk étudiant marié ne dégg am 22 ans waaye nag ci boo xoolee suñu fal suñu boo xoolee Touba dëkk waaye la ma wax indi ko ndax moom li am dafa ëpp dafa dafa ëpp ans dégg nga dafa ëpp vingt ans waaye àgg àggul ci àggul ci vingt huit àggul ci dafa ëpp kii dafa ëpp diggante dama ne ko nag bépp doo xam ne am nga maanaam am ëpp li nga am ëpp na vingt ans boo xool vingt deux ans am na vingt na vingt ans waaye moo ko ëpp man man bu fekkoon ne moom din naa rek kon booba doo du garaaw dégg moo dinoon bii rek du garaaw waaye nag di ñàkk gi dindi moo tax mu kii dafay boo xoolee xaar ma xaar ma ma ma si bi léegi nga xam ne pour rek nga xam nga gën a nga gën a xam ñëf yi moom bu bu amul lool rek boo xoolee fi ne kon amul amul benn âge benn âge kese laaj def dégg nga léegi ma daanaka kon ñëw suñu avancé dégg nga daanaka kon lii ñu daal fii rek daal ok ko fa daal ñëw fan ñu daal ñëw fii bii mooy bii dégg ma ok ma ñëw ci bii par exemple ci bii ma la copier copier daal ma ko copier ci feneen daal ko copier feneen ma sélectionné bii rek teg ko teg ci ne ko tegal ma ko fii rek wala ok boo neexee nga da ngay créé sa kii boo ko gis nga ñëpp ñëpp la indi képp kon dëkk nga Touba Guédé rek moo xam am nga 28 Fallou Dramé 28 ans la am kii 22 ans la am kii 21 ans la am moom fi ne moom yoom nekkul ci prime yi yoom nekkul ci maanaam âge yi yoom nekkul ci kii moom li li nga wax rek mooy que ni benn condition nga wax mooy que ni na na na na am kii nii mooy na na na nekk kii na na dëkk Touba Guédé boro ko at yi am ëpp vingt vingt huit ans nga xam ne tey bu fekkoon ne tey jii maanaam ba kii nii dafa am dama ko defal dix huit ans fekk boobu sart bi nekk fi boo boo boo ma defee bii du ko indi dégg nga da ko indi kon loolu mooy loolu la ñu wax maanaam filtre avancé filtre avancé moo tamit dañ lu bari bari nga da ngay da ngay am ci ay ay mooy li ñuy wax ci ay condition dafa bari nga nga am ñu bëgg a feeñal am ñu bëgg a feeñal moom boo ko defee tey jii mën na ko mën ko def ay compo mën na ko képp dafa am li ñuy wax maanaam dafa am moyenne lu toll lu commencé un dafa am moyenne commencé dix ba quinze bu mu génn waaye lu commencé quinze ba vingt na ma ko génneel bu defee bu baax c'est la même chose que yoon wi ñu jaar nii rek ci la ko ci ko jaarale defal la ko comme ni nga ko bëggee léegi la leer misaal bu ñu amoon bu gudd boo xam nombre dañoo bari xam nga nañu xool fii bu ñu wàcc ne ma tableau bi moo def moo def xam ndax bu fekkoon dañoo am fi ay tur yu wàcc yu xam tur fana ba moo ci tur yi ba mënuñoo xam moo ci noo kon pour mu kii rek da ngay takk da ngay takk xaana bi daa ñëw ci affichage bu ñëw waaw daal ñëw ci fii nii mooy li ñuy figuré vol bi dégg daal def nii mais daal wàcc lu mu bëri bëri boo xoolee bi gis nga a wàcc waaye da nga xam ne fii tur yi da nga xam ne fi la nekk nga xam ne fii la quartier yi nekk nga xam ne fii la profession loo wàcc wàcc rek fi ne yooyu du wàcc nga xam fi ne maa ci soixante boo xoolee mi mi kon loolu dañ yàlla na dañ koy soxla lu bëri bëri dañ koy soxla beneen saay boo am na ne maanaam li ñuy wax figuré figuré maanaam le maanaam level bi nga xam ne boo xoolee moom tamit i si kanam lay doon maanaam boo xoolee moom tamit booy wàcc xay na maam kii bi man jëmmi jëmmi aay aay aay rek la du yóbbu dégg nga boo taxee ci kanam kii bi nii def ko figuré boobu def ko figuré boobu ñu daal def ko figuré bii nii dégg boo xoolee maanaam maanaam yëpp koy wàcc boo defee nooy nooy di wàcc misaal tey jii tamit ma taxaw fii ma def tableau bi def ko figuré boobu def ko sikire boobu dégg nga dañuy wàcc ba xool ba xam boo xoolee maanaam moom tamit moom du wàcc maanaam boo moom dafay am kii yoo xamee ne ay kii la doon dafay nekk yoo xam ne prince ay ngay lu ñuy wax colonne maanaam colonne ngay fixé misaal tey jii daa colonne bi xama xama xama figuré li ñuy wax ko bi xam ne colonne bi la la bëgg figuré ama ko bi dafay nga figuré colonne ba xam xool ba xam ndax daa wàcc dégg nga boo xal da dee waaye nag boo defee boo defee poussé nii gis nga boo pousse boo pousse jëm ne colonne bi du des ndax da mi ngi moom dem waaye boo wàccee day dem ndax li tax muy wàcc mooy que ne lan mooy da nga fixé wut kii bii moo tax xam ne man ngaa dem fixé nga ne bii ma fixé maanaam li ñu ma maanaam bi ne maanaam biir maanaam colonne yi ak li ñuy wax maanaam ligne bi mooy supérieur bi comme toujours rek lii dama mën tamit ñu koy soxla lu bëree bëree bëri ak tamit leen leen li nga xam moo tax di soxla moom tamit mooy gën a xëy na maanaam liggéey yi ñuy def ci Excel maanaam formulaire yooyu boo bëggee xam formulaire yi boo defee ci formulaire ko indil mooy ci affichage bi affichage la forme maanaam dala indil mais misaal lii sax mi a feeñ ci misaal tey ji ma ñëw ci koyof misaal bi misaal fekkoon damaa def loo xam ne fii yooyu fii nii nga xam ay dafa am ay siyeg yooyu boo ñëwee ci forme boobu benn bu nekk da lay wax benn bu nekk ni nga dafa am ko dégg nga ñëwee ci formule ñëw ci affichage ñëw ci affichage fi affichage la formule waaw danaan la kat fem na da la nangam fois S nangam yi nangam nangam xam ne yi benn bu nekk wax fi jóge benn bu nekk da lay wax fi mu jóge waaw wan la ban ban moo fois ban moo fois ban nga bu defee boo defee nii mu la ko indi baat dégg nga xamante ne maam Modou Yama tamit xëy na moom tamit lu am solo loo xam ne xëy na dañ koy soxla boobu de classeur yi su fekkee ne xëy na am na yoo yoo bëgg a xool yëpp dañ ko dañ ko dañ ko utiliser. ba tamit boo boo ñëwee ci li ñuy wax euh, données données moom tamit xëy na maanaam li ñuy wax euh, affichage affichage wala données sax affichage révision waaw révision laa bëgg wax révision ci ci données données révision lay doon révision waaw li muy demee que ne da ngay portefeuille mooy li ñuy wax portefeuille ba nga xamee ne kenn du ci mën a bind xam nga feuille moom boo ko portefeuille ma jëmee feuille waaye fekkee ne classeur bi moom mooy que ni jëmmi Excel bépp nga ngay kii nga tey di mën a ko naa porté la ñuy wax naa porté la ñuy wax fooy dégg nga misaal ma sélectionné daal bind fii misaal mën a fooy daal bind fii lan bind fii sama code misaal 1 2 3 4 sama code daal di kii bind yaa gis ok daal di daal di kii 1 2 ok dégg nga fi ne ku ñëw waaw boo bëgg gis nga ma teg rek fu ma teg rek bu ma bëgg bind fi ne kenn du ci mën a bind ku dul te bu ñëwee nag bu ñëwaatee fii ci ci ci daal dindi ko dindi ko daal dina dugal mot de passe bi 1 2 3 4 dégg nga daal ok bu defee mu daal dañ nga xam ne fi ne fu mu teg moo bindee mu daal di ñëw nga xam du am benn problème kon moo moo yàlla mbir la ma xam ne fekkee ne classeur bi nag moom tamit man boo boo kiiwee daal daal wax classeur dégg nga daal def 1 2 3 4 ok defat 1 2 3 4 ok dégg nga boo xoolee fii fi ne foofu foroxal dégg nga jëmmi classeur bi xam nga ñëw ci fii ma xëy na xëy na ma lay doon ma ji fay indi ma xool ma suuf ma ma ndax ndax dem mi ngi dem xaaral portrait de la vision non protège la créature un deux trois xëy na xaaral xaaral ma xaaral ma xaaral ma génn dugaat ki ci kii ba ma génn dugaat waaw ma xool ci kii bi portrait la portrait croiseur empêché na modifié bu ngay insérable ñu ci def ko def ko 32 40 moom dafa defar ci portrait la kii bi comme ni portrait fooy mel rek nga xam ne maanaam tey jii classeur yi fi ñu doon amoon yu bare bari nga xam ne nga am ay kii amoon dina ko

moog bi ñëw wareem c'est la même chose que bee xëy na peut être daa am lu ma bàyyi foo xam xëy na mënoo xam fan lay nekk waaye moom boo ko defee moom tamit c'est la même chose moo gën a bu dalee protéger foofu yi comme ni fii fii fii bu la neexee sax doo protéger foofu yëpp waaye dama naan ko rek ah, damay sal damay sal xane benn kii ay sëriñ daal mën a ko daal forme lii dégg nga daal daal di xool sëriñ boo xam ne rek misal tey jii sëriñ bii ma taxaw nii dégg nga te mooy S S12 dégg nga mën a ko protéger famille kii bi variant kii bi daal daal kii moom boo xoolee moom day lànk dégg nga moom boo xoolee day lànk dégg nga après nga dina kii bi deux trois quatre te mu mën a dañaat ndax boo bindee protégé dama protégé woon ñaari dégg nga mën a dañ kon moom tamit yàlla moom tamit ñu koy faral di utiliser lu bare bare lu bare bare ci yëf yi kon daal yaakaar naa tey ñaaree lañ ci amoon ci loo xam ne dëgg ci mooy li wax euh, mise en forme conditionnelle maanaam nga xam ne yaataan loolu nekk ci ay ak li wax forme filtré ak filtre avancé maanaam ñaar la ñoo la danañ indi benn bu nekk tamarin yoo xam ne incha allah leçon yi di ñëw incha allah tamarin bu nekk lépp loo ne jàng na ko ci excel incha allah bu defee nag xam naa rek lu mënta ñàkk loo xam ne xëy na naa ñu fàtte ko comme lu mel ne tey ji foofu yi bu ñu bëggee mu nekk côté côté ndeyjoor dañ mu nekk nii bu ñu mu nekk côté càmmoñ ko def mu nekk nii dégg nga bu defee euh, imprimé yooyu moo nekk moo nekk nii forme fooy yooyu dégg nga tamit maanaam affichage bi maanaam affichage bi moom xëy na mooy nekk affichage bi comme ni ñu ko jàngoon ca wóor rek nga xam ne boo neexee ñaar par ñaar ngay indi dégg xam ne day nekk maam vertical wala mu nekk horizontal yaa xool noo ko bëggee rek bu defee indi na ko horizontal bu fekkoon tijji naa message tey ji euh, contrôle xam nga bi dem daf mu nekk forme euh, réunion mu nekk lan vertical misaal mu def vertical boo xoolee da indi fi fooy bi indi fi beneen fooy nga xam ne ngay jàkkaarloo ñaari fooy yëpp bu neexee mu lan forme nekk forme bii man yaa xool boo bii bi nekk boo xoolee gis nga bii ne day am fi day am fii léppam waaye bii day am lépp nga bu neex nga ñëw fii bu neex nga ñëw ci yaa xool bu neex nga boo xool ñaar yëpp benn bokk ci sa morom moom wàcc moom wàcc bi mu inu ci bi mu bësaati ci bi beneen bi ci kii bi nga xam ne kii lay doon yoo xam ne yaa xool noo ko sentiree moom tamit fekkee ne bi moom mooy zoom moom nga xam zoom yeeg yooyu yokk yi comme moom mooy nekk ci suuf fii rek moom mooy nekk ci suuf ci suuf fii nii dañ koy dañ koy faral di gis ak euh, li ñuy wax euh, figuré dégg figuré nga xam ne moom moom la ñu wax léegi dégg yaatal fi tuuti dégg nga xam wax léegi bala nga demee dañuy wax euh, dañuy wax kii moom man ko xamal ko doon wax te mooy te mooy. maanaam boole ñaari train moom boole ñaari train yi boo defee li ñuy wax kii bi boo xam leen siw la nga xam day boole ñaari yëpp mu ñu nekk benn loolu boo ñëwee ci fii nii am na lu ñuy wax forme formule dégg nga formule formule formule waaw tey jii misaal tey jii bu ma seetlu tey jii ne mooy nii mooy nii dégg nga seetlu nii daal ñëw ci formule fii tànn fi benn misaal tey jii tànn fi colonne bi nga ma def nii dégg nga da koy def dégg nga xamee ne da lay wax képp koo xam ne danga am moyen wala bokk kii bi da ko def ay ay ay façon ndax tey jii bu ñoon calcul loo xam ne am njaay la da nga xam da lay wax ne la maam ñii ñoo ëppale dégg nga ñii ñoo ëppale ñoo ëppale dégg nga moom neex tamit xëy na xaama tànn benn bi daal tey ma tànn benn ñëw ci mise bi ñu forme yi dañuy la insertion la fii tamit mu nekk bu nekk nii xam na mu nekk forme bi nga xamee ne maanaam képp koo xam ne numéro 1 bi ki am 1 moo nekk nii maanaam bosam mooy mooy nekk ni numéro 2 moo nekk ni numéro 3 série 1 série 2 toujours rek da indil ba sans départ ci série 2 série 3 série 4 nga xam ko ëppal bu neexee ko forme bi forme yi dañ ko fa dégg sax di yàlla bu fekkoon bayaana da nga xam ne peut-être xëy na dañoon dara loo na xëy na ay kilo yoon bu neexee dama nekk ma tànn bi ma tànn bi am na teg bi ngeen ngeen gën a xool nga xam ne da la war a ne maanaam numéro 1 bi moom bosam baaraam mooy gën a gudd numéro 2 maanaam mooy gën a gudd numéro 3 bi nii numéro 3 ba keroog mu mu keroog mu kii nga xam ne fekkoon dafa am ay série nga xam ne dafa am ay composition yu bëree bëri da leen composition bu nekk ni mel maanaam fii bu neex mu nekk nii bu neex mu nekk couleur bi dégg nga bu neex nga changé ko te eh, ko beneen beneen kii boo xam ne ni lay mel dégg nga xam ne boo xam ne day wane ne numéro 1 mooy mooy féete kaw numéro 2 topp ci numéro 3 topp ci dégg nga ki am mention kii bi bu neex nga changé ko oh, def ci beneen kii boo xam ne yàlla dañ koy dañ koy faral di gis moom am am solo loo xam ne xëy na maanaam sax maanaam mën nañ ko bañ a xam léegi waaye maanaam boo demee bañ sax nga nga liggéey ne maanaam da nga koy soxla bu baax a baax a baax ci ay kii bu neex mu nekk nii bu neex mu nekk comme forme bi nga xam ne day nekk day tëdd nii dégg nga day nii da koy xaajal nii dégg dégg da koy xaajal nii wan na la série série 1 mu mooy ñu bële ñi série 2 mooy nii dégg mooy deuxième mooy kii troisième bi wala boog troisième moo nekk nii quatrième bi ba keroog mu jeex kenn ko dala koy xaaj def la koy xaaj pour nga gën a xam kenn ku nekk mooy ñan dégg nga bu mën nañoo tànn ci comme forme ban forme bii nii mën nañoo tànn comme forme bii nii maanaam day xoolee baar bi da koy tëral man dama xoolee bi mooy gën a gudd kii gudd maanaam ki ki toujours rek mooy mooy mooy gën a mooy gën a mooy gën mooy gën a mooy gën a ma dama leen ko soxla lu bare ma tamit xëy na euh, boo ñëwee tamit ba tey tamit foofu yaakaar naa waaye yàlla ba tey bii bi nuage bii tamit am na man tamit bii maanaam forme bii lay nekk dégg nga boo nee tamit mu nekk comme forme ban mu nekk comme forme bii nii autre bi nga xam ne du da nga ciy tànn mu nekk nii dégg nga tànn bii pourcent yi nga xam ne bu fekkoon tey jii danaa la fi mu toll nii yëpp 1 bi moo nekk nii dégg nga am 10 pour cent bii kii 9 pour cent kii 9 pour cent 9 pour cent 8 pour cent 8 pour cent ba ko rek en dépendance bi ni nga ko soxlaa rek naan temps moo du yàlla tey dañ ci loxo naa bëri waaye nag comme ni koy waxee rek xel moom moo xaw a moo xaw a yaatu yaatu waaye boo xam ne mënoo ci wax lu tuuti kon mbokk yi ñu ngi leen di jégluwaat bu baax a baax a baax a baax a baax di lépp loo xam ne lënt la wala boog ñu wax ko waruñ ko woon a wax wala ñu juum ci ñu ngi leen koy jégalu wax dëgg yàlla loolu lépp la suñu jubluwaay li ñu jubluwoon rek mooy leen ba leer bu baax a baax lépp loo xam ne gudd nañ ci waroon fee gàttal ñu loo xam ne gàttal ñu waroon ko guddal ñu leen koy jégalu di leen ñaanal ngeen jëriñ ci bu baax a baax ci barke Sëñ Tuubaa di jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa إلي جميع الصراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سقيم لك الكتاب يا قريب يا مجيد يا من لي لا تغني خير مجيد هب لي وللذين خاتانهم يا هدى الدين خير مطلقون إياك نعبد ونستعين فإنك المحمود والمهين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من لي الملوك النقيب يا للصراط المستقيم هب لنا هدى